الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi gannaaw bu ñu sant yàlla ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyoo nuyoo lislaam mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu eh, ngi portable incha allah nañuy def seen portable seen portable yi bilan parce que anti réseau mënuñu koo mënuñu koo tuppee parce dafa am ñaari sites yoo xam ne dañ koy jël en direct kon portable yi nañ ko def bilan wala livré kon du ma guddaloon bi incha maa ngi jox microphone bi suñu docteur incha allah docteur Ahmed Lo thème waxtaan bi mooy ak daawa ila alkitabi wa sunna fadluha wa asaaruha mooy woote jëmale ci tere yàlla subhanahu wa taala ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeneelam ak jeexitalam incha allah nañu déglu docteur mu indi ñu une heure de temps incha allah pour waxtaan bi incha allah. bismillahi rahmani rahim. inna alhamdulilah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 ñoo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di am mbégte ci dajawaat ak mbokk yu tedd yi ci bërëb bu bi nga xam ne yoon bii du suñ njëlbeen gi yoon dajawoon ci at yi weesu sunu borom daal ci tawfiqam mu dajale waat na fi ren yàlla na ci loo xam ne ngërëmam lay doon te defal ñu tawfiq ba lépp lu ñu fi wax mu dimbali ñu mu doon lu jub lu ci doon lu dëng itam ñu lu ko doomu aadama rek moom moom la mbiram demee noonu jataay bi ñu dajale tey mooy waxtaane lu ñu bokk noo ngi nekk fi béréb boo xam ne ñu ngi ko duppee markazu daawati ilal kitaab wa sunna kër la koo xam ne woote ci alquran ak sunna tur woowu lañ ko duppee muy tur wu tedd wu baax wu am solo tey ñuy waxtaane tomb boo xam mi ngi jëme ci woote ci alquran ak sunna bu la neexee nga ne woote jëme ci alquran ak sunna bu la neexee nga ne woote jëme ci yoonu yàlla comme ni ñu koy waxee addaawatu ila allah woote jëme ci yoonu yàlla ak woote jëme ci yàlla ak woote jëme ci alquran ak sunna lépp mel na maanaam rek la danañ jéem tënk euh, kàddu yi ci ñetti tomb benn bi mu ngi jëm ci taarifu daawa bu ñu waxee daawa woote liñ ci jublu beneen bi mooy fadlu daawati ila kitaabi wa sunna ni ko suñ bopp mi waxee léegi woote jëmale ci alquran ak sunna dafa am ngëneel ngëneel loolu mooy lan ñetteel bi mooy aataaru daawati ila kitaabi wa sunna muy jeexit seen pàcc yi nga xam ne woote jëmi ci alquran ak sunna daf koo am ci doomu aadama yi daawa nag suñ ko waxee ci kàllaam ak arab rek li muy firi mooy al talab wala al duaa ila shay wala al xas ala qasdihi suñ waxee ne woote ci kàllaam ak arab ñu koy tudde daawa kooku dafay mel ne kuy sàkku dara la wala kuy soññee ci dara su dee dañoo bëgg a wax nag définir ad-da'wa ila al-kitab wa wala ad-da'wa ila Allah wala ad-da'wa ila sabilillah talab wa an-nida' wal-hath ala al-iman billahi ta'ala wa cibaadatihi waxdahu la sharika lah wa taacatihi wa tarki macsiyatihi wa taxalluqi min al axlaaqi alsharciya wal aadaabi almarciya dañuy wax ne woote bi lañ ci jublu dëgg nag ci définition bi mooy woote yëkkati sa kàddu ba ñépp dégg la nga soññee ci ngëm sunu borom tabaraka wa taala nga ci ngëm mu nekk ci xol ànd ak ay jëf ak wéetal sunu borom tabaraka wa taala jaamu ko moom dong te bañ koo boole ak boole ko topp ko ci def ay ndigalam ak bàyyi mboolem ay tereem boole jikko woo jikko yi nga xam ne moom la sharia santaane ak teggin yi nga xam ne la diine indi ki woote jëme ci loolu mën na noo wax ne mi ngi woote jëme ci alquran ak sunna bu nu neexee ñu ne mi ngi woote jëme ci sabilullah maanaam yoonu yàlla bu ñu neexee ñu ne mi ngi woote it jëme ci yàlla daawa moomu nag baatu daawa ci alquran al am na ay maanaa yu bari yoo xam ne indi na ko waaye nag benn bin ci rek mooy boobu nu wax ndax daaw boo demee ci alquran da nga gis ne comme ni ma ko waxee léegi dana firi ak talab sunu borom tabaraka wa taala mi ngi koy wax ca suratul furqan laa tad'u al-yawma thuburan wahida wad'u thuburan kathira maanaam laa tatlubu mu ne bu leen sàkku benn musiba benn alkande waaye feebul ngeen sàkku alkande yu bari kooku yéefar yi lay waxal dana firi an nidaa mooy ku yëkkati baatam di jooru woote ci kaw sunu borom tabaraka wa taala loolu ci alquran wa yowma yaqulu naadu shurakaai alladina zaamtum fa daawhum fa lam yastajibu lahum nee na bu ëllëgee yowma alqiyam day wax ne yëkkati leen seeni bu ngeen jooru woote ci kaw ñu ngeen jàppoon ne samay moroom lañ sunu boromay wax de ñi ngeen jàppoon ne samay moroom lañ ba ngeen doon leen jaamu woo leen leen nag tey ngeen yëkkati seen kàddu jooru foofu naa de jëfandikoo waaye nee na fa daawhum wala fekk na ne daawa ci boppam day firi loolu ba tey nee na ñu woo leen waaye taxul ñu wuyu leen daawa dana firi itam ci alquranul karim as sual mooy ñaan ñaan ngir ñu may la borom bi tabaraka wa taala firndeel na ko ci alquran ba tey eh, comme ni mu ko nettalee ci banu israil qaalu udu lana rabbaka udu lana rabbaka yubayin lana ma lawnuha foofu laaj lay firi laaj sual boobu laaj lan koy firee mu ne banu israil ñoo wax ñu ne laajal nu sa boroom mu leeralal nu nag wi ñu bëgg ñu rendi ko ban couleur la am kon kooku question la foofu addu'a question lañ koy firee foofu mooy laaj moo tax mu ne ud'u lana rabbaka foofu euh, laaj la firi boo xam ne mooy question euh, addu'a dana wala da'wa dana firi ba tey al mooy sàkku ku la xettali ku bëgg a xettaliku mooy koo xam ne dafa dugg ci musiba bëgg ku ko jàppale mu génn ca musiba ma borom bi tabaraka wa taala wax na ko qul araaytakum in ataakum adabu llahi aw atatkum saatu gayra allahi tad'una in kuntum saadiqin mu ne ndax su fekkee ne eh, mbugalum yàlla dikk na wala ngeen nekk ci càggante ba mu leen ne yowmal xiyaama gi ñëw ndax su boobaa da ngeen mën a xett li ku ci keneen ku dul yàlla ndax dangeen mën a ñaan kenn mu xett li leen ku dul seen borom tabaraka wa taala ad daawa dana firi al amr muy santaane ndig digle ordre maa lakum laa tuminuuna billahi wa rasulu yadruukum li tuminuu bi rabbikum lu leen teree gëm seen boroom te xam ne yonent bi mi ngi leen di digal ngeen gëm seen boroom foofu yadookum yamurukum lay firi dana firi it addu'a muy ñaan ko xam ne tàllal di ñaan la kooku danañ ko tudde ba tey daawa xam nga ne baatu du'a itam ci lañ ko jëlee ud'u rabbakum tadarruan wa xufya innahu la yuhibbu almu'tadin ñaan leen seen boroom tàllal leen seeni loxo ngeen ñaan seen boroom te boole ko akub toroxlu boole ko akub làqu sunu boroom tabaraka wa bëggul kenn kuy jalgati kon baat yooyu yëpp buy juróom bu ci nekk ak daax wala koy firi waaye baat yooyu boo seetee benn bu ci nekk am na ak cër ci biir waxtaane ndax am na ci ak wàll goo xam ne kii day sàkku te day yëkkati kàddoom te day ñaan suñu borom di topp ndigalam di sàkkoo xettali ko ci moom yooyu yëpp mu boole ko ngir ñot di ki ak soññ ko ngir mu jëfe alquran ak sunna li waral loolu nag moo di ñaan googu mu wax mooy jaamu suñu borom tabaraka wa te daawa ci boppam kii woote daa jëme nit ki ci mu jaamu borom bi tabaraka wa wéetal ko bañ ko boole ak dara moo tax suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne mbindeef yi ba mu leen di bind ñi jaamu leen ñi jaamu ko moo tax kon kii woote jëme ci loolu mi ngi woote jëme ci alquran ak sunna nee na wa ma xalaqtu jinna wal insa illa li yacbuduun maa uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutcimuun inna allaha huwa razaqu dul quwati matin suñu borom tabaraka wa taala nee na binduma jinne ak nit binduma jinne ak nit lu dul ñu jaam ma sallaaw binduma leen ngir bëgg na ñoom nañu ma wutal lu ma lekk maa uridu minhum min rizqin wutuma ci ñoom wërsëg wala uridu an yut'imun wutuma itam ñu jox ma lu ma lekk kon yàlla laajul xaalis laajul luñ koy wërsëgal ndax kat bu dee wërsëg suñu borom tabaraka wa taala mooy joxe wërsëg nga tax inna allah wa razaqu dul quwati matin te xelu doomu aadama li muy nangu su fekkee xel mu mucc na moo di li ñu jaamu fu mu jógee borom tabaraka wa taala dong la mën a jëm ndax ki ko yeyoo mooy koo xam ne mën naa bind ki mën a sàkk mën a créer kooku moom dong moo yeyoo ñu jaamu am na benn borom xam-xam doon wax ne ku bëgg ñu jaamu ko sooy bëgg nga defar defar sa nit bopp ñu di jaamu comme ni yàlla def bi mu bëggee ñu jaamu ko dafa sàkk jinne ak nit ne leen jaamu leen ko da ngaa yëg ci bopp nag yow da ngaa màgg ba da ngaa a ko la jaamu ah defaral sa ma ba xam danga ko mën a def moo tax borom bi tabaraka wa taala dong moo yeewoo ñi jaamu ko walladina yad'una min dunillahi la yaxluquuna wa di jaamu ba di leen wéngale yàlla sunu borom tabaraka wa ñooñu mënuñoo bind dara mënuñoo sàkk dara te ñoom ci seen bopp dañ leen a sàkk moo tax doomu mu sàkkul dara nag na fee fekk nag yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo leen sàkk mu defaral ko am xel ba mu ñu muy jël nangam di booleel nangam ba nangam jóge ci waaye loo xam ne moo ko karee sàkk ko fekk dara nekkul woon mu andi fa dara loolu suñu borom tabaraka wa taala rek moo ko yeggoo inna alladina taabuduuna min dunillahi laa yamlikuuna lakum risqa ki nga xam ñi nga xam ne ñoom ngeen di jaamu seen wërsëg yóbbu ko wërsëg bi ki ko yor kenn ke moo di arrazaaqu dul quwwatil matin mu di suñu borom tabaraka wa taala loolu mooy li xelum doomu aadama mujj nangu waaye ginnaaw nga xam ne doomu aadama day dem ba mu yàgg euh, xel mi ak bind sell bi ñu ko bindoon mu waroon a nekk ci tawxiid day dem ba mu yàgg mu soppeeku jóge ci di jaamu yàlla waaye mu dem di jaamu leneen lu dul yàlla jóge ci màggal yàlla mu dem di màggal leneen lu dul yàlla fekk loolu amaana environnement ba muy dund comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee fa abawaahu aw bidaanihi aw nasiraanihi aw yumajjisaani yuladu mawlud ala fitra nee na nit kiy juddu day juddu fekk moom ak sell la indaale ak mbaax waaye ay waajuram su waxee ay waajuram mooy environnement bi ko wër kër gëm nekk dëkk ba penc ma ñooñu ñooy participer moom ba mu soppeeku su soppikoo nag yor beneen melokaan nag jóge ci jaamu yàlla jëm ci jaamu meneen koo xam ne bindeef la mu jël àq yàlla di ko jox koo xam ne bindeef wala seytaane yi nga xam ne sayaatinul jinni wal ins la ak woote yu yi nga xam ne bi ngi tasaare ci kaw suuf kenn ku nekk di woote ci dara loo xam ne du yóroo ak alquran ak sunna la boo ko boolee mooy waral mu jaadu ci ñi xam ne sunu borom tabaraka wa taala jox na leen ak cër ci pas-pas bu wér jox leen cër ci alquran jox leen cër ci sunna ne dañoo war a jóg ñooñee nga xam ne seen xel yi jaxase nañ ko tey jaxase kat jaxase ko ñoo xam ne shayatin jinni wal insi ñoo koy def wala environnement bi jaxase ko sofeeku bu yàqu bi ñooñe ñi jóg jéem leen ak dimbali jàppale leen delloo si leen bañ dem siwaat ci siraatul mustaqim loolu mooy muy yitte yi yitte yi tax daawa bi jóg kon kooku mooy loolu cosaanu daawa nag ci jëmale ci alquran ak sunna mi ngi ci waxu sunu borom tabaraka wa taala mu ne laqad manna allahu ala almuminin id baata fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin waxaat ko ca weneen saar wa huwa alladi baata fi lummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikma wa in kaanu min qablu la fi dalaalin mubiin suñ borom tabaraka wa taala foofu li muy wax nee na yàlla ci boppam moo defal xéewal ñi ko gëm yàlla moo leen defal xéewal yéen ñi gëm xéewal ga mooy lan nee mu yónni ci yéen ab yonent boo xam ci yéen nit la bokk du malaaka du jinne du leneen waaye doomu aadamal ni ngeen ko doone yor cër yi li leen di dal di ko dal li leen di gaar ci ay xiifa ki marak ci feebar di wéraat ak am ak ñàkk yooyu yëpp di ko gaar alayhi salaatu wasalaam neen kooku yërmaande suñu borom la ak xéewalam waaye nee na yonent boobu yatlu alayhim ayaatihi wa yuzakkihim dafa ñëw ngir di leen jàngal alquran maanaam kéemaani suñu borom yi jënam gën a yaatoo di leen war ñi ngeen war a waaru ngeen di ci waaru di jàng alquran ngeen di dégg wa yuzakkihim mu di leen yar itam di leen sellal di leen defar wa yuallimuhum alkitaba wal xikma mu di leen jàngal alquran ak sunna al imam shafii rahimahullahu taala mi ngi wax ne fépp foo gis ci alquran ñi boole euh, alkitab wal xikma xamal ne xikk mu foofa sunna la fi firi kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëkk ñëw di woote ci alquran ak sunna woote booba nag sax na ci alayhi salaatu ba nim fi ca loola la nekkoon am na ci it lam ca bëggoon def na li ko boroomam santoon ba sunu borom tabaraka wa taala seedeel ko lool ndax kenn ku nekk xam na ne ca xijjatul wadaa yonente bi alayhi salaatu wasalaam aj aj te tàggoo ca ak askan wi gannaaw bu mu defee bu yaatu ba ca bisu arafa bu gudd boo xam ne làmboo na cosaani lislaam yépp ak pilier yi ci gën a dëgër bi mu noppee wax nit ñi kenn ku fi teew na ko jot li ku fa te ku nekk xam na ne ndaje moomu yonente bi alayhi salaatu wasalaam amal kero ci yowmu arafa am mbooloo daje na ko moo xam ne musta daje ci jullit yi ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mu baree noonu kero la masa taxaw di wax ci seen biir borom xam-xam yi ñu koy nettale ci miatu alf téeméeri junni ci ay doomi aadama cent mille waxuñu ñaar fukki junni waaye téeméeri junni bi mu noppee dafa wax ne ala hal ballaxtu ndax jottali naa ñëpp ne ko ballaxta ya rasulallah muy joxoñ ci kaw di wax ne allahuma ashhad allahuma ashhad allahuma ashhad yow saa borom seedeel kon yow saa borom seedeel yow saa borom seedeel ne li nga ma def loo woon kon moo ngoog def naa ko kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam jottali na mboolem diine moo tax aaya jooji wàcc ci moom te wàcce ko ko muy alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina aaya boobu wàcc ci moom te fekk ma nga ca Arafat te bis boobu mooy wane ne diine lislaam keroog farata yaag sunna yaag teggin yaag jikko yaag lépp lu aju ci yàlla bëggoon ci jaam yi ñu mel noonu wala ñu koy jëfe mu doon ay pas-pas wala ay jaamu yàlla bis booba fekk ca la lépp wàcc ca la noppi ca loolu dëgg la ay aayaati alquran wàccaat na gannaaw bu fa yonente ko xoolee bu ñëwee day confirmé waat lu mu ko fekkoon maanaam day dëggal lu ko nekkul waaye sosaat lu bees nag amaatu ko gannaaw bi kon diine foofa la ma su fekkee diine nag noonu la ma te yonente bi alayhi salaatu wasalaam jóge fi dem kon da lay wóor ne dara mënatu caa dollikuwaat lu amul woon ci jamono yooyu ñu tudde ko diine ñu doonaat lu baax kooku mooy dëgëral nit ki gannaaw bu pas-pasam dëgëree ba noppi mu dëgëral ko nag ci wàll nag jàpp ci sunna ak woote ci sunna gi nga xam ne day làmboo wartandikuloo nit ñi itam biddaa ndax biddaa dafa doon loo xam ne li muy dafa doon bu ñaaw doonte ga koy def lu gën a bari moom daa jàpp ne ci lu baax la nekk ndax xër ci jaamu yàlla wala xër ci mbir wala xër ci doomu aadama mooy tax nit ki dem ba dugal ci diina lu ca bokkul léeg-léeg gañee ko koo xam ne day jàpp ne sunna moom lu yaatu la loo xam ne daal ginnaaw fas nañ santaane julli julli bu la neex rek mën nga ko julli ak lu la neex ginnaaw fas nañ yi itam tudd yàlla mu la neex nga koy tuddee fu la neex nga koy tuddee ak waxtu woo xam ne wu la neex wu ne ak lim bu la neex seytaane foofu lay naxe nit ba dugal ci ñoom yenn bidaa yi nga xam ne yu mat a wattandiku la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu leen réere mbir bu leen fàtte ne mat boobu diine mat ci loxoom dafa mat ci anam yépp maanaam ya wàcc yépp dafa wàcc julli dafa wàcc koor asaka tudd yàlla lépp loo xam xeetu jaamu yàlla wàcc na ci moom ci ak dundam bi mu wàccee yëwut ci loolu waaye dañ ko wax nu mu koy defee mu jàngal nit ña defin ya lu ca am ab lim mu ne la lii ñetti yoon nga koy wax lu ca amut lim beneen mu ne lii fukki yoon lu ca amutub lim mu ne loolu da nga koy wax lu la sa waxtu may bu dee kuy tawaaf mu ne ko nii ngay def juróom ñaari yoon lay doon fii ngay tàmbalee la ngay gàccoo dañuy génne mbagg mi kon bàyyiwul dara ba ci booy dugg ca wanama mu ne la tànk bii ngay jiital booy génn bii ngay jiital booy dugg ci jàkk ji bii ngay jiital lii ngay wax booy génn bii ngay jiital lii ngay wax kon lépp daf koo jàngale muy koy defee kon biddaa boobu yëmu ci ne nit ki day sos loo ne lu amul woon la waaye yi amoon ba noppi nit ki day biddaawoo ci soppi gi mu koy soppi dugal gi ci dugal lu ca bokkul woon lim bi mu koy jox te amu ko woon moo tax nit ki dafa ñëw ci jàkka ja di julli gannaaw boo xamee ne julli ñu suba ba noppi Omar ibn Xattaab ñëw yor gàcciraam muy yar lu sew ba wax ko mën a ko dóor ko mu ne ko ndax da may dóor nag ci julli mu ne ko déedéet waaye dama lay dóor ci juróo ak sunna lu bari ci nit ñi dañuy buñ gisee ñu créer seen bopp yàlla la moo xam ci lim la moo xam ci defin la moo xam ci waxin la soo ko waxee la muy comprendre mooy da ngay defe ko wax laa ilaha ko wax ko julli sax wala ku sax fekk loolu kenn du ko ter waaye la tere mooy jaar yoon wu bokkul ak yoonu yonente bi alayhi salaatu wasalaam biddaa li a ñaaw mooy dafa làmboo ñaari mbir yoo xam ne kii def biddaa mënu ci mucc ci benn benn dafa làmboon yonente bi alayhi salaatu wasalaam am na lu mu nëbb loo xam ne daal ñëw na nekk ak saxaaba yi ba dem te bokk ci sunna wala mu bokk ci loo xam ne lu ñu war a jaamoo yàlla la mu ñëw ba dem te jàngalewu ko maanaam da koo dégg wala da koo xamut ñaar yooyu bu ci ab jullit fas rek musiba la ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu xamul mënut a bokk ci diine ji mukk yonente bi alayhi salaatu wasalaam amut lenn lu bokk ci diine ji jottaliwu ko yonente yépp sax dafa xaraam ci ñoom li ñuy wax alkitmaan kon amul lu mu nëbb yaa ayuha rasul balligh ma unzila ilayka wa in lam tafal fama ballagta risalata lépp luñ wàcce ci yow yonent bi na nga ko jottali soo nëbbee leen na rek mel na nga mosoo jottali dara loolu la ko yàlla wax wallahu yasimuka min annaas kon bidaa loolu mooy ñaaw ñaaw bu metti bi ci nekk mooy ki koy def moo xam wax na ko ci làmmiñam te lu bari du ko wax ci làmmiñam sax nag ndax néew na nit ki di wax ne yonente bi xamut lii wala ñu wax ne lii yonente bi da koo nëbb waaye yeneen i taawil lañ lay jox yeneen i waxin yoo xam ne jàpp ne am na ñu baaxee ñoo xam ne da leen koo jagleel am na nangam nangam yu mel noonu am na ñoo xam ne nit bu baax bu ko indee des boo war a jël xeet bi mel noonu kooku la seytaane di jaare ba dal leen leen ci diine ji yu ci bokk te nag dafa dem ba bari nag bu jéggi daal bari boobu mu bari bokk na ci sabab yi war a tax nit ñi jugaat nag ci jàngale alquran ak sunna ak woote ko ak jàngir yi duma wax ne ñu soppi ko waaye ñi ñi ñi rafetalaat ko rafetalaat jàngir yi alxuraan yi ci boppam ak mokkal yi waaye ñi rafetalaat njàngum sunna yi yéen koo teg ci ay programme yu baax di ko jàngale ci jàkk yi di ko jàngale ci daara yi dugal ko ci biir programme yi école yi xale yi bañ a jàng alquran mokkal ko yem ca daal di dem ca marché ba liggéey waaye nañ jàng alquran yi jàngalaal leen sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy anam boo xam ne mënul ñàkk ñu def ko ci mën a woote ci alquran ak sunna woote nag li daawa dafa am ay xaaj yu xaw a takku ndax bu dee dañ koo ci wetu lan mooy atteb daawa ndax farata la ndax sunna la kifaaya comme ni ñu koy bu fekkee ne atte bi la daawa woote mën naa nekk fardu ayn maanaam farata joo xam ne day tegu ci loosu ku nekk mën naa nekk fardu kifaaya mooy loo xam ne dafa war xeet bi yëpp su amee kenn ku ko def wala ñenn ñu ko def ñëkk def bàkkaar bu tegu ci seen kaw maanaam daf leen di wàcc kari la ban façon daawa mooy nekk fardu ay nga xam ne ku ku xam dara ku ne da lay waar kooku mooy al amru bil maaruf wa nahi anil munkar li nga xam nga xam nga ko ci xam-xam mu néewoo bàyyi muy benn aaya tax boo xam ne nga ko xam nga lu muy firi yaa nga tey góorgóorlu di ko jëfe muy benn xadiis tax boo xam ne xam nga lu muy firi dégg nga ko yaa nga tey tëggari di ko jëfe kooku jaaru na ci yow boo gisee ku ko xamul nga baaxee ko comme niñ la ko xamale loolu mooy balligoo anni walaw aaya jot li leen doon te benn aaya li nga xam jàngal ko ki ko xamut li nga xam ne xam ne la sax jàngoo aaya jàngoo xaddis xam nga ne lii dégg borom xam-xam ne lii baaxul kooku xam-xam la ba ngi sa bopp moo tax jàng xam-xam du jàng mooy jàng rek di tàgg waaye li nga xam ne la ne li ci la tegu te borom xam-xam nee na la lii lu baax la lii lu baaxul la nga gis ku ko def tam doon lu baaxul kooku waajib la ci yow fardu ayn la ci yow kooku nga ñëw ko lii nga def kat baaxul loolu mooy man raa minkum munkaran fa yugayyirhu ku gis ci yéen lu baaxul na ko soppi kon fardu ayn bi mooy ki xam dara di ko jot ci ak ki nga xam ne xam na ne lii baaxul mu gis ku koy def mu war ko koo tere kooku ñëpp la war sartul ci yow nga nekk aalim bu mag sartul ci yow nga doon koo xam ne say at yëpp noonu li ci tegu li mooy loolu ci mën a doon na ànd ak ay teg yi ak nañ koy jëf waaye loolu moom day war ñëpp ba ca tegu mooy bi nga xam ne dafa nekk fardu ay fardu kifaaya fardu kifaaya bu ñu ko waxee ci Eh, wax yu borom xam-xam yi mooy loo xam ne ñépp la tege ci seen kaw waaye ñenn ñi mën nañ koo def wuutu ca ñu tege ci misaal fardu ayn bi ma noppi léegi mu ngi mel ni julli julli farata farata la ci mboolem mu kàllaf mu ëmb gànt su waxtu julli jotee suñ toogoon fi ba timis jot mënuñu ne ñenn ñi dañuy julli yóbbaale ñu ci des waaye kenn ku yaa mën a julli sum kenn di jullil kenn kooku mooy fardu ayn mooy loo xam ne ñenn ñi mën nañoo yóbbaale ñu ca des maanaam ak néew génn na àdduna bokk ci julli ji kooku tege na ci kaw xeetu jullit ya nekk ca dëkk boobee ne waa jii de warees na koo sang warees na koo sang wareef na ko jullee waajib boobu tege na ci loosu kaw askan bi yëpp su fekkee kenn defu ko ñëppay am bàkkaar waaye nag su amee ñenn ñu jóg fukki nit ñaar fukki nit defar ko yéen baax ñu sànn ko yóbbu ko ci jàkk bi jullee ko bàkkaar ko wàcc nit kooku mooy fardu kifaaya daawa nag am na ci pàcc boo xamee noonu la mel maanaam fardu kifaaya ci kaw loolu askanu la teg waaye daa am ñu fay wuutu ñu ca def mooy daawa bi ñu tuddee ak daawatu taxassusiya ñi nga xam ne dañu jàng daawa ba xóot ca xam asaali bi yoon yi ñu koy defee bu dee dañu dugg ci li wax xiwaa muy dialogue nan lañ koy defee buñ gisee bu ay dëkk yu bari nekk ci boppam nuñ koy dindee buñ demee ci jataay boo xam fatwa la laaj nit ñi yor question yu bari nañu lijjantee loolu loolu mooy ñi nga xam ne dañ leen jël jàngal leen ba ñu am xam-xam waaye ñu tàggat leen ci anam yi ñu war a jëfandikoo ci woote jëme ci alquran ak sunna ñooñu loolu askan bépp mënuñu ko kon faww day am ñu ca wuutu ña ca def moo tax suñu borom tabaraka wa taala ne wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun na am ci yéen wal takun minkum ummatun maanaam mbooloo na am ci yéen benn mbooloo moo xam ne yatawuna ilal xayr dañuy woote jëme ci alquran ak sunna su ko defee ñooñu euh, ñooy wuutu ñi ca ci loolu ndax dëgg la fu waay nekk fu nekk door julli war ngaa xam ci dara ci diine waaye nag taxasus nag spécialiste nag ci diine loolu dafay laaj nag am ñenn ñu ko defee ñi a nekk ci leneen ndax xeet rek liñ soxla dafa bari maanaam suñ ne woon xeetu Sénégal wépp dañoo bëgg ñu nekk ay fuqahaa yoo xam ne dañoo a sharia ba xam ko su boobaa amatuñ ay tabaxkat ay ministre amatuñ ñoo xam ne ñooy def naan amatuñ amatuñ ay yoo xam ne ñooy faj doomu aadama yi suñ feebaree amatuñ ab armée boo xam ne mooy aar kon nit ñi kenn ku ne ci diine da ngaa war a xam li nga xam ne lu mënta ñàkk la ci nga xam ko en tant que jullit waaye nag spécialiste ba nga xam ne dañ koy doo jàngale diine nag ak tasaare ko ak woote ca loolu ak kuréel lay doon ci moo tax borom bi falaw laa nafara min kulli firqatin minhum taifatun yatafaqqahu fi diin wa liyundiro qawmahum ida rajaw ilayhim laallahum yaxdaruun nee na askan wi dafa war a am mbooloo mu jub jàgg yooyu leen bopp seen waxtu jàng diine suñ ko jàngee ba mën ko dellusiwaat nag ci xeet yi lañ jàngoon ñu jot li leen ko kon kooku daawa bu mel noonu fardu kifaaya lay doon ñenn ñi dañ ci yóbbaale ña ca def waaye ñëpp ñu ñoo doon ay spécialistes ci anam bu mel noonu léegi rek bokk na ci li jaxase mbir mi moo di ay nit ñoo xam ne dañoo jóg pour bëgg a wuutu astronomie anam bu mel noonu te fekk jaar ñu fa ñu waroon a jaar ba ak si foofu am aw fit ci diine di ci wax léeg-léeg ñu tudde leen islamologue léeg-léeg ñu jox leen yeneen i tur ñuy wax ci turu diine ci turu pas-pasam ci turu fiqam sañ a toog di fatwa ñu leen di laaj ñuy ci diine te boo leen laajoon ku leen doon jàngal li ngeen xam biñ la wax ne kenn moo leen ko doon jàngal koo xam ne borom xam-xam buñ xam la dañoo songu téere yëpp di lii ba mu yàgg ñu xëy benn nit ñu jëpp ñu ne kooku borom xam-xam la te askan wi ginnaaw a kuy borom ku dàqa wax rek ci nit ñi wala gën caa bari wax sax wala gën caa dooru fit su ko defee ñu ne kooku mooy borom xam-xam la ndax xam-xam ki ca soriwul fit wa day dëgër loolu ku jaar ci curriculum ni ñu jànge xam-xam da nga xam loolu ci sa bopp nit ki dana dem ba mu yàgg muy fàttaliku boppam ci gannaaw yaroon na ci aw fit soo xam ne day dem ba mu yàgg mu jéggi foofu yëpp ne man de dëkk ci musiba la nekkoon daal di soppi ko carrément fi boobu yaroon ki nga xam ne nag daan toll ci diggante boobu mbooloo mi ne ko yow kat yow ndekete nii nga xam-xam fu mu teew ñu ne borom xam-xam daan loolu kooku day wooru rek diggante bi te musiba ma ñuy tegu mooy duutu jàng ndax su continué woon jàng dana dem ba mu yàgg mu xam ne moom kat liñ koy teg doonu ko waaye ki xamul xam-xam nga xam ne xamul luy xam-xam ci na xam-xam ginnaaw nit ñi wax nañ ko ko rek mu jàpp ne moom li nit ñi wax dëgg la loolu tax na lu bare bari ci diine ñi bi li ñuy bind li ñuy wax ci rajo yeeg li ñuy wax ci télévision yeeg lu ci bare bari boo toogee di ko déglu bu yàggee da ngay ni euh, am yërmande lool ci askan wi nga xam ne dañoo toog di déglu lu mel noonu te jàngaluñ leen ñu jàpp xam-xam li ñuy boo xam ne buñ noppee dañ ko war a jël di ko jëfe loolu musiba mu mag la moo xam ne réew muy aarul diine rek foofa la mën a amee ah, ba tey daawa dañuy ko séetale ci geneen anam muy min naaxiya al marxaliya maanaam buñ xoolee étape yi taxaw di jaar te delloo ko ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nan ko tudde woon dañu gisoon ne dafa amoon daawa sirriya am daawa jahriya amoon na woote boo xam ne ci jamono dekk tasaare wuñ ko woon déclaré wuñ ko woon waaye dañ doon woote ndànk-ndànk dem ba toll ci étape boo xam ne lañ doon dund màkk soppi na soppi ko nañu mën koo yëgle nag fu nekk loolu euh, kenn wax ne dafa yemoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ba fii ñu toll di wax ak yéen am na ay réew yoo xam ne kenn mënu faa jékki ko wax ci kaw nit ñi ko dégg ngir ay fit fit la yoo xam ne yu yu méttee méttee métti na man gis naa koo xam ne ci réew moom dëkk ku mokkal alxuraan la moom xale boobu yi bokk ci benn concours alxuraan bu ñu doon def ci benn réew ci réew yi jullit mu ne moom bàyyam fi mu ko doon jàngalee alxuraan daanaka say boo nga ne ci am pax na ndax kenn sañul woon a yor ab kaamil ci réew moom ñi lay gis wala ñu xam ne yow mi da ngay jàng alquran wala ñu xam ne yow mi da ngaa mokkal alquran wala da ngay julli ne ko koy def ku nekk da ngay dëkkut nee bàyyi bi mu liggéeyee këram ba noppi su teeree ba dafa liggéey loo xam ne la mu am ci téere fa la ko teg def fa daaraam ci tekk rek bu xëyee wala bu guddee moo xam waxtu bu muy jël jàngal ay doomam bu ñu xëyee ci mbooloo mi dem Euh, liggéey kon ñooñu daawa sirriya mënta ñàkk ci ñoom surtout société bu mel noonu bu ñu ko gisee dañuy delloo si waat jamonoy màkk ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon dund mooy la jàppandi rek nga di ko defee noonu boobu keroog ngay tane ci wàllu diine euh, euh, bu nekk war ngay sant sa borom tabaraka wa taala ci bu la jàpp ndalalee doomu aadama yi nekk ñu dëkk bu mel ne bii doon ay jullit yor seen jàkka di julli di woor kenn dal seen kaw kenn terewu leen ko suñ bëggee jàng seen xam-xam anam goo xam ne daawa sirriye borom bi tabaraka wa taala musal musal nañu ci sunu bu woote ca kaw lan koy wax amul lu ñuy nëbb ci jàkkee lañ koy waxe ca kaw min bari ku bëgg a xam nu ñi li suñuy bas bas ak loolu nekk yu mel noonu boo dégloo rek daal di xam lu mu doon amul lu ñuy mooy doon la borom bi tabaraka wa taala waxoon yeneen ba biñ demee def tasaare woote bi jot nag publier ko ca kaw jot daf ni ko qul hadihi sabili adu ila allahi ala basiratin ana wa man ittabaani wa subhana allahi wa ma ana min al mushrikin na nga déclaré ca kaw ne waxal na qul hadihi sabili yëkkati ko ca kaw yëpp xam ne lii mooy saw yoon yow adu ila allahi ala basiratin damay woote jëmale ci yoonu yàlla mu ànd ak xam-xam ala basiratin ana wa man ittabaani képp ku ma toppit kooku day feddali ne ku ànd ak wa sallam woote ci alquran ak sunna day daal di nekk ci yow kon woote alquran ak sunna amul lu ñuy nëbbu ci kanam ay jullit amul sekkare amul ñu naan ñi am nañ béréb yi ñu daje am na ñu yubal am na lu ñuy ràpp nangam des leen war a ragal wala déedéet ñoom seen la ñuy wax ca biir néeg ba mooy la ñuy wax ci kaw minbar ba amuñu lu ñu nëbbu kon woote bi islam noonu la war a mel ba tey am na woote boo xam ne fardiya la ak boo xam ne jamaa'iya la yooyu yëpp ci xeetu woote yi ci la bokk woote fardiya mooy nit ñi ni ñu leen di woo bokkul façon wooyeen yi bokkul lii nu toog nii ak woote la boo xam ne woote bu mbooloo la dañoo mbooloo mais ñi bokk toog di déglu ñuy jéem euh, fexe ba am lu ñuy leeral loo xam ne mbooloo mi teew ñépp danañ ko jéem a dégg borom niveau yu kawe ca xam-xama ñu digg doomu ñëw nga xam ne dañoo nekk ci suufa kenn ku ne nga jéem ko yombal bu mën a moom woote mbooloo loolu la laaj moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu yónni eh, ibn Jabal ca Yaman te fekk foofa ñi fa dëkk ay intellectuel lañ comme ni ñu koy waxee ci jamono doonuñu woon ñu toog ci seeni roq rek defar seeni këram di ko jaamu wala yu mel noonu waaye dañoo doonoon ahlu kitaab dañ doon jàng di bind doon ay nasaraan ak yahud kon jàng nañ téere yu bari daf ne ko innaka tarti qawman min ahli kitab yow kat maa ngi la yebal ci béréb boo xam ne ahlu kitaab a fa nekk maanaam ña fa nekk dañuy jàng di bind te dañoo jàngoon yeneen i téere yu bokkul ak alquran ak sunna fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah la nga leen di jëkk woo na doon ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasul loolu fa nekk di yàq sa ci naan leen jikko bu rafet nii lay mel ak kuy julli nii lay jullee kuy woor nii lay waaye yow tàmbaleel ci buntu ba mooy nañ am tawxid ba noppi parce que problème mu bokkaale lañ am kon boo demee tàmbaleel foofa Muaz ibn Jabal jamono yooyu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di di yebal ànd ak ne ndaw la loolu ñu bari dañ ko war a dégg ndax Muaz ibn Jabal bi muy génn àdduna fanweeri at ak nangam la am fanweer ak juróom ñi neen fanweer ak ñett te dund naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li fi nekk lépp moo tax dañuy nattale ne bi ñu koy yebal ay atam maa woon ñaar fukki at ak juróom wala ca lay toll waaye ànd loola téewul dañ ko préparé woon dañ ko jàngaloon yar ko xamal ko itam ni ñuy tàmbaa ba nag yóbbal ko nag yóbbal boobu mu ko jox bi muy tàggoog moom kon ndaw ci biir lislaam ñàkkul rôle bu mag bu mu ci mën a joxe yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas naa wax ak saxaaba yi ne leen aalamukum bil xalaali wal xaraam Muaaz ibnu Jabal ki gën a xam lu dagan ak lu daganul ci yéen yéen ñooy mooy saxaaba yu mag yéen ñëpp Abubakar a nga fa a nga fa Ali Yusuf Omar a a nga fa mu ne leen ki gën a xam lu dagan ak lu daganul ci yéen mooy Muaaz ibnu Jabal man xale bii ngeen gis mu toog kooku muy garaat boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko takkal benn diplôme bu mu jox Muaz ibn Jabal ñëpp teew dari nag saxaaba yi kenn ku na diplôme boo xam ne buñ la ko waxoon da nga naan kii keneen melul ni moom waaye boobu moo teew tey bi mu ko yónni foofa gannaaw bi mu ko préparé jàngal ko ko war a jàngal ba ne ku la la ca tegu ba mu koy yebal ko ñii ngay waxal kat ñii lañ mel dañoo jàng dañoo xam dañoo def li ñu kon nit ki nga xam ne spécialiste la ci woote ci woote imaam bu nekk war koo dégg jàngalekat bu ne war koo dégg yarkat bu ne war koo dégg mooy bu dee da wax ak ab boo xam ne daa am niveau buñ toll bokkul ak kuréel ba ngay waxal te fekk tolluwu ci niveau boobu su waxin yépp nekkee benn rek njaxas am rawatina nag bu dee kenn nit ngay waxal ba tey woote mbooloo ak woote kenn dafa am njariñ maanaam woote bi ñaari façon yooyu waruñu cee jóge mukk am na ñoo xam ne buñ doon wootee conférence ba déwén duñ ñëw waaye am na yeneen i jërëb nag yoo xam ne danañ fa teew am na ay xaritoo yuñ xaritoo ay nit ñoo xam ne borom xam-xam la kooku occasion la ci borom xam-xam bi mu tànn ñooñu benn par benn di toog ak ñoom di leen wax ñuy dégg di leen woo ci alxuraan ak sunna ñuy dégg bañ leen a séentu fee bañ leen a séentu fële beneen occasion boo mooy jullit ajuma xutbatul jumaa kooku occasion la boo xam ne daawa jamaaiya la wooteeb mbooloo la nañ ko watteel a suufeel ba nga xam ne boroom xam-xam yaa ñu yàgg ca daawa la duñ ci jëriñu waaye nañ ko wattu yitt yi ba nga xam ne ñi ngi yàgg woon ca daaraas ba di liggéey ñi nga xam ne jàngaguñ ci dara ci diine duñ ci mën a jëriñ kon day nekk lu ne ci diggante bi loo xam ne ñëpp dañ ciy jëriñu loolu nag day laaj ak tàggatu boo xam ne Eh, képp koo xam ne day woote daf koy aajowoo foofu daal li bëgg wax mooy woote am na anam yu bari nag ñu ngi yoo xam ne benn bu ci nekk xam ko doon na lu mun ci nekk eh, ngëneelu woote jëmi ci alquran ak sunna maanaam fadail yi ci nekk bari na lool lool lool danañ ko jéem a gàttal su noppee gàttal réparti yi ci nekk bokk na ci ngëneel yi am moo di lu jógee ci sunu borom tabaraka wa taala jëm ci ab yonentam sunu borom moo waxub yonentam ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wootee jëme ci sa yoonu borom moo ko wax ne ko qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin kon li borom bi tabaraka wa taala digal ab yonentam doy na ñu xam ne loolu doy na sëkk njëriñ ñaareel borom bi tabaraka wa taala moo ne ki woote jëme ci alxuraan ak sunna boole ko di def jëf ju baax kooku moo gën a sell ñépp ay wax moo gën a rafet ñépp ay wax mu ne wa man axsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qaala innani min almuslimin kon aaya boobu day wax ne kenn gën a rafet ay wax ki woote jëmale ci yàlla boole ko ak di def jëf joo xam ne ñu baax la mu doon lu am solo nag min man daa ila allahi wa amila saalihan moo leen wan ne woote jëme ci yàlla yi warta doon waxi jafe daa war a nekk wax ak jëf su doonee wax joo xam ne jëf àndu ca su boobaa daawa ba kii woote mi ngi loru waaye mën naa lore itam mën naa lor keneen mi ngi lor boppam ndax mi ngi def bàkkaar bu rëy ci ne lim xam ba di ci woo nit ñi moom jëfewu kooku musiba la loolu melokaanu naafiq yi la moo tax mu bon mi ngi lor ñeneen ndax moom mi ngi yaakaar ne moo ëpp xam-xam ci dëkk bi wala borom xam-xam ci borom xam-xam yi dëkk bi ci la bokk muy woote di wax ba ñëpp xam ko ci woote jàngale yare ñu wëlbati ko di ko fekk ci wàllu jëf muy def lu wuute ak li nga xam ne moom la doon woote kooku mën naa fitnaal nit ña man de xam naa nit koo xam ne ab élève la bu doon jàng ci daara ci école ab naar nekk fa bokk ci ñi koy jàngal bokk ci boroom xam-xam yi ñëwee ci réewum arab boroom xam-xam boobee di tux ay nit di ko roy ca tox ga moom noomee mu bokk ci ña ko ca doon roy ba ci tey du ma fàttali ay jamono yoo xam ne ñu dajaloo di ko laaye bi rek di ko yedd daf ne su doonoon lu baaxul diw sàngam du ko def parce que borom xam-xam bu mag la kon responsabilité bu mag boobu moom la borom xam-xam am ci biir askan bi moo tax zallatul aalimi zallatul aalam maanaam jeex su dëngee mën naa dëngaare mbooloo kon kii woote la muy woote da ko war a jëfe su fekkee lu mën a jëfe la su fekkee da caa lot nag ñu xam ne kii da cee lot maanaam néewuñu looy woote lu ne rek nga door koo jëf ndax su doon loolu ki yorul alal bu jàngale asaka moom kay dina jàngale asaka ndax dafa bëgg ñu ña am alal ci ñoom ñu mën koo def ña mën a aji ci màkka ci ñoom mën koo def waaye bu dee lu mën nag mu def ko nag ñi di ko def ñii gis boo ne julli leen ñu di leen gis ngay julli boo ne woor leen ñu gis ngay woor boo ne bàyyi leen tox bàyyi leen nangam bàyyi leen nangam ñu gis nga bàyyi loolu kon ñu mën a daa ila allahi wa amila saalihan ñaar yooyu a ànd borom bi tabaraka wa taala ñooy daje nit ki doon euh, koo xam ne ku sell ab wootekat la mooy nangu naa woote ñëw ci yàlla boole na ko jëf-jëf ju baax ba noppi nangoo honneuram dëgg-dëgg muy sharafam ak i'tizaazam doon lislaam ci boppam ñetti tomb la woote boole ko ak jëfe boole ko ak damoo lislaam maanaam sa ndam li gën a rëy li nga xam ne yow su nit ngay damoo yeneen yi loola mooy sa lislaam abil islaamu laa abadi sibaa suñ ne sama bàyyi jëf li saa maama ni nga deman day lislaam laa am te mooy li gën lépp waaye am na ci nit ñi ñoo xam seen lislaam dañ koy nëbb buñ toogee ci yenn jotaay yi rus nañoo wane ne sax ñoom ko jullit kooku tax min man daa ila bu dul ci làmmiñam mu def ko ci melokaanam ñu ko bu julli jotee ñu gis ko muy julli bu woor jotee ñu gis muy woor bu jëf lu baax jotee ñu fekk ko muy bu tere lu ko ak sori ko ko mu di ko tere di ko daw di ko sori kon melokaan yooyu mooy daje jullit bi doon jullit bu sell doon ak wootekat bu sell bokk na ci ngëneel yi moo di ne wootekat yi ñooy ñi gën wootekat yi digle lu baax di tere lu bon ñooy ñi gën ci xeet bi suñu borom a ko wax kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna anil munkari wa tu'minuuna billah yéen yéen ay xeet bi gën ci xeet bi xeet wu yàlla bu sa génne yéen ci gën lu tax nee na ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna anil munkar da ngeen di digle lu baax di tere lu bon loolu mooy woote ci alquran ak sunna ak tere nit ñi lépp loo xam ne dafa jóor alquran ak sunna muy pas-pas bu yàqu wala muy biddaa wala muy mooy yàlla wa tu'minuuna billahi wala doon seen ngëm doon ngëm gu mat sëkk borom xam-xam yi dañuy wax ne euh, fii dafa jiital digle lu baax tere lu bon ba noppi door ne wa tuminuuna billah kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruf da ngeen di digle lu baax wa tanhawna anil munkar da ngeen di tere lu bon wa tuminuuna billah ngeen di gëm yàlla lu tax mu jiital digle lu baax tere lu bon mujj ngëm yàlla tax na ngëm yàlla moo gën a màgg lépp ñu ne ki ñuy wax meloon na melokaan yëpp ba noppi li tax ñuy wax li saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo ci jiitu ba ñuy wax kuñ tuñ ja ñoom ñoo ko teewoon kon te ñoom la tàmbalee képp ku leen roy te bokk ci ñoom meloon nañ ba noona ba noppi kon nag lu tax la la loola dafa doon ci jóge ci ñoom jëm ci nit ña lu koy jàllale la tu'minuuna billaahi ci nag daa loo xam ne ci seen bopp la kon suñuy lim yi ëpp solo ci wàllu diine dëgglal li nga xam ne mooy ngëm yàlla moo gën a màgg lépp waaye buñ ko xoolee ci geneen anam sa pas-pas yow ak sa bàyyi biddaa lépp lu aju ci say jaamu yàlla loola yow yaa ko moom waaye nag li jëm ci nag nit ñi nga di leen ko baaxel loola moo baa war a jëm ci biir askan wa loola lu ay téeméeri nit ñoo ci war a defaroo ñu mel ne yow ay ñaari téeméeri ay million ci ay doomu aadama mën moo tax loola gën a li nga xam ne kenn ci moo ko jago loolu la borom xam-xam ne ci tomb boobu ñi nga xam ne ñooy woote ci yàlla bokk na ci seen i moo di ne borom bi tabaraka wa taala moo leen dig ak texe ci àdduna ak ci àllaaxira mu ne waltakun minkum ummatun yad'una ila alxayri wa ya'muruna ma'ruf wa yanhawna anil munkar wa ulaika na am ci i ñu jóg woote ji ci alquran ak sunna di digle lu baax di tere lu bon mu ne ñooña mooy ñi texe texe googu texe adduna la ak googu àllaaxira ñi nga xam ne dañuy woote bokk na ci seen ngëneel moo dina yërmaane sunu borom tabaraka wa taala day sottiku ci ñoom sunu borom ko wax nee na wal muslimuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baad ya'muruuna bil maarufi wa yanhawna anil munkari wa yuqimuuna alsalata wa yutuuna alzakata wa yuticuuna allaha wa rasulah ulaika sa yarhamuhum allah inna allaha azizun xakim nee na jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ñooñu dañ kenn ku ci nekk yaay féetam sa morom maanaam dañuy jàppalante dañuy dimbalante moo tax dañuy diglante lu baax di tereente lu bon boole ko di julli di joxe seen asaka di topp yàlla ci lépp loo xam ne digal na leen ko akub yonentam di topp yàlla akub yonentam mu ne ulaa'ika sayarhamuhumullah ñii nee na ñooñu ñoo yeyoo yërmande yàlla di yërëm kon loolu lu am solo la ci wecceente boobu jàppalente boobu ci digle lu baax ak tere lu bokk na ci gëneel yooyu mooy kii digle lu baax ab yoolam day continuer dañuy fulu rek di dem képp nit ki nga xam ne dañ koo jàngal lu baax woo ko ci alquran ak sunna ba mu jàpp ci alquran ak sunna loola yow am nga ci yoon bu boo xam ne kenn xam ne xam suñ borom rek moo ko xam kooka jóg di jàngal keneen wala ñeneen kum jàngal wala ñum jàngal lu ca am ci tuyaaba moom yow am nga lu toll noona te du dara nga ci tuyaaba moom ñooñu amaat nañ ñeneen ñu ñuy jàngal tuyaaba gi ñuy jël ku jël rek yow mi tàmbali woon yëpp da nga cay amaat kon loolu dafa doon mbir moo xam ne bu mu tuuti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ci xadis boo xam ne muslim moo ko solo mu ne man daa ila huda ku woote jëme ci njub woote jëme ci njub mooy woote jëme ci alquran ak sunna kaana lahu min al ajri misla ujuri man ittabaa képp koo xam ne woote na jëm ci ak njub dana am yool bu toll ne yooli ña ko wuy ji maanaam yool am ak ñoom rek am nga am nga sa wàll waaye rek laa yoon dara kon kooku yiw bu woo xam ne suñu borom tabaraka wa taala xam nu mu daanaka jullit bi bu xamoon ne loolu toll jar na sax mu bàyyi yëpp rek di di liggéey ci daal woote ci alxuraan ak sunna ba keroog ñu ñuy ci ndax la ca ci aw yiw ba ca tegu moo di ne ñi nga xam ne ñooy woote doy na sëkk ci ñoom ndam doy na sëkk ci ñoom dalu xel ak mbir ñu xam ne seenub yool yaatu na lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fa wallahi nee na waat na ci yàlla ne la an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumri naam ca beneen riwaaya ba xayrun laka mimma talaat alayhi shams wa garabat xadis mi ngi ci Buxaari nee na moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam waat na ci yàlla ne yàlla gindi benn nit ci sa loxo moo xam daa nekkoon ci kéefar yàlla gindi ko ci sa loxo mu dugg ci lislaam ci sa woote wala daa nekkoon ci ay biddaa sunu borom tabaraka wa taala gindi ko ci sa loxo mu ñëw ci sunna wala dafa nekkoon ci ay mooy yàlla nga waar ba mu bàyyi mooy yàlla bi ñëw ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee sab yool moo gën a màgg la gën a màgg ci lu nit ñuy naw fa ñoom bu doon ci jamono yooya xumurum naam gëléem yi nga xam ne ñooy façon gëléem yu xonq yi am ci seeni jamono yooya moo doon gànjar ga gën a foor ci ñoom mu ne kooka lam am ci tuyaaba ñu ko bindal ci jenn jëmm jooju ëpp na lool xam ngeen gëléem bokk na ci euh, mala yi nga xam ne seen mbir dafa doon lu doy waar moo tax suñu borom tabaraka wa taala ak yonentam lu bari ci ay misaal ñi di ko ci joxe ñi nga xam ne dañoo xam xeeti gëléem dëgg dëgg dëgg xam façon yi am na ci biir gëléem xeetu gëléem yoo xam ne ba ci suñu jamono bii ñuy toll bu yàggul rek lu ëpp lu weer ak nàngam noog lenn ci ay mbokk ziyaare nan kilifa boo xam ne ca nañ mu yor géntu gëleemam boo xam ne la fa nekk ci ay gëleem mooy xumru naam ci ñoom ci suñ jamono tey jii benn bu ci wax ne bu ci nekk dalay wax ne bu ñu ma fayoon bis nekk tey un million ci rial du la ko jaay un million mooy cent million wala cent vingt quatre million ci suñ xaalis mun tey genn gëleem bi kon loola lu foor ñoom la tey lu foor fa ñëpp la ndax cent vingt quatre million xanaa lu am solo la su fekkee jëmm ji nga xam ne waar nga ko ba lenn lu la mu doon def borom bi tabaraka wa lu yàlla kon loolu doyoon na sëkk waaye yeneen bi alayhi salaatu lu mu wax lu gën lay ko boole woon ak li ci am yow ci tuyaaba moo kon loolu woote ci yoonu yàlla lu rëy bokk na ci ngëneel yi moo di ne woote ci yoonu yàlla moo di sababu najaat min al xusraan mooy tax mucc ci pertaange sunu borom tabaraka wa taala fi suratul asr bi ne wal asr inna al insana la fi xusr daf ne illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil xaq wa tawasaw bis sabr ñëpp perte nañ ba mu def ci wuy ji borom yóbbaale ngëm yàlla boole koog doon jëf-jëf ju baax fii ci àdduna sori mooy yàlla yi sori bi daal boole ko ak di laaye biir doomu aadama yi di leen digal lu baax di leen ko tere kooku moo perte kooku mooy kiy def daawa moo na ci ngëneel yi moo di kii woote moom setal na ab jaram fasunu borom tabaraka wa taala maanaam jaanam wàcc na comme niñ koy waxee ki nga ñëw digal ko lu baax tere ko lu bon yow sa jaan wàcc su ko jëfee rek am nga yoon bu toll noonu waaye su ko jëfewut it am nga yoon la ndax boo dajee sa borom da nga amul ay moo tax borom bi daf ne wa id qaala taifatu minhum lima ta'iduuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adibuhum adaban shadida qaalu macdiratan ila rabbikum wa laallahum yattaquun nee na ñooña dañoo ñëw woote di waaraate ñu ne leen waaw yéen yéen a ngi yàq seen waxtu kat da ngeen di ñëw ci ñii nga xam ne kenn ku nekk xam ne li ngeen di wax buñ ko doon dégg yéen ngeen ne ñii ba noppi tax ngeen di leen woo di sànni seen temps xaaloo ñi tontu leen ne maadiratan ila rabbikum ndax nu amul lay fa suñ borom ba kenn ku neen wóote wu leen wóolu maanaam def nanu lanu war tey wala allahum yattaqun amaana itam mën nañu gindiku kon bu mu am kenn ci société bi wala kuréel wala mbooloo moo xam ne da nga daan ñi moom alku nañ jeex na kenn mënatu leen a woo kenn mënatu la wax a ñoom déedéet lu mel noonu amul wootekat bi xamut loola lu mu lëndëm lëndëm ak lu ñooña sori sori sori du ñàkk bunt wala fenêtre wala boo xam ne warees na faa mën a jaar ba wax ak ba wax kon buñ ne kenn alku na te fekk faatawuñ ginnaaw bu ñu dund daal di dem ak a ñëw defe ne occasion boo xam ne mën na ci gindikoo te wootekat bi ci kaw suuf dafa mel ne benn médecin boo xam ne dafa xam lool tawat yi gis doomu aadama yi feebar ba nag nanguwu ñëw faj yërmaande jooju muy am ak pexe yi muy am bëgg leen a ndax ñu nangoo ñëw ñekku wala ñu nangoo ñëw faju coono bu mel noonu la war a yëg moom wootekat bi kon yërmaande la dencal doomu aadama yi bëgg ñu gindiku ba njub am ci kaw suuf waaye ba mu am itam tuyaab loolu moo tax muy yëngu moo tax muy dema ko ñun kon yëg-yëg boobu lay am bu dee jeexit yi nag woote am na ay jeexit yu bare bari yoo xam ne yeneen yi ci société bi lay dellu yeneen yi ci individu yi lay dellu ci doomu yi euh, du ma ko toftale waaye danaa lim rek lenn ci jeexit yi nga xam ne woote am na ko muy impact yi mu am ci bokk na ci ne eh, société bi nga xam ne ci njub muy woote ci alxuraan ak sunna dañ faa nekk société bu mel noonu mooy mën a baax waaye su fekkee ne société dafa yàqu te ay wootekat nekk ba société ba du mën a baax loolu kenn ku nekk xam na woote bi bokk na ci ay meññitam ki nga xam ne day woote te jaar ko ci yoon lu mu ko war a jaar muy melokaani woote kat ak i yëg-yëgam ak i doxiinam dafa nekk ci moom suñu borom tabaraka wa taala daf koy gindal defal cofeelu doomu aadama yi di def ak cofeelam ci seen xol loolu suñu borom moo koy def eh, woote kat bi wax naa leen ne borom yërmaande la ci askan bi kon jógul ngir ŋàññ askan wi wala du leen xas wala du leen saag ab defarkat la kon jógul di yàq ab tabaxkat la kon jógul di toj kuy defare ay diggante la kuy dimbali doomu aadama yi la ku leen di jox ay xel la ay conseil di leen laaya biir kon kooku la chaque ni kii xëcc lool di ca gont nag te fekk dafa sellal loolay tomb bu am solo yàlla tefee tax amul leneen lu mu ci séentu séentuwul ku ko tagg seetul ku ko ca fay suñ ko fayul wari moom loolaay liggéeyam léegi nga dégg ci nit ñi ku la man bëggoon na maa toog di daaw bëggoon na ma def naa nga waaye damaa amul raati maanaam daal amu salaire kooku wóotewul woote bi ki ko jël gën ko nekk ci buñ ko joxe salaire buñ ko joxut ak buñ ko fay buñ ko fay buñ ko ne jërëjëf ak buñ ko waxul jërëjëf loolu mooy liggéey day woote dafay jot ci kàddu yàlla tuyaaba la yàlla tax muy jëf yooyu de saa bu ci nit ki borom bi tabaraka wa taala mooy def cofeel cofeelu doomu aadama yi moo koy def ci xoli doomu aadama yi jeexit yooyu bokk na ci moo di ne woote ci yoonu yàlla mooy tax diine mën a continuer njub mën a continuer ñun jëfe alxuraan ak sunna mën a continuer jàkk gi tabarakallah li fi yàlla def ci ay nit ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ci alxuraan ak sunna su fekkoon ne jéemuñoo woote ci dara li ñuy ak sunna di ko jëfe waaye boo waxtu julli jotee rek ñu julli rek daal tëj bu ajuma jotee ñu ñëw jàng loo xam ne kenn ko dégg duñ xam lu mu doon daal di génn dem bu yàggee mbooloo mi fi nekk doonte ñu ni doonte ñu koy dund ak naasa ngi ñëw ci kanam xam ne duñ que kenn jàngalu leen kenn xamalu leen dañoo gisoon ñii di julli ñu ñëw di julli rek mais jàngalu leen dara kon day dem ba mu yàgg kenn du xam ñii la leen boole woon lu moo di ndax loolu nekkat loolu dal na ay kuréelu diine yu bari ci kaw suuf tey yoo xam ne xëy na la ko sosoon xam-xam la woon ak jàngale ak kër këri dugg ak génn ñu dem ba jàngale nag amatu ko pap ñu bokk toog di kër këri ci yeneen dem ba mu yàgg ñu fàtte ne lii li ko sosoon mooy xam-xam la woon ak jàngale kon ci woote ak jàngale xamal nit ñi ci la lislaam di continuer waaye su fekkee ne loolu amul service bi day dem ba mu yàgg mu dagg wala yàlla billah su boobaa yàlla da leen di jële foofu wutal ab wooteem bu sell toxal ko yóbbu ko feneen jox ko ñeneen ñu ko ndax ña ko yen woon defatuñ ko woote ci alquran ak sunna mooy aar ab société bi aar aw askan ci mbugal bu gaaw ñu mën a jóge ci sunu borom tabaraka wa taala wàcc ci aw askan wa ma kaana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslixuun société bi askan wi seenu tooñ lu mu bari bari bari borom bi tabaraka wa taala du leen alal li feeg ay doomu aadama ngi fi yoo xam ne dañoo baax ba noppi di baaxal maanaam dañuy digle lu baax di tere lu bon dañuy woote ci alxuraan ak sunna ñooñu yërmaande lañu ci kaw askan wi ba mbugal mu jóge fa suñu borom di wàcc ci seen kaw kon ñooñu kat ñu mat a amal ci dëkk lañ ñu mat a fonk lañ ñu mat a bàyyi xel lañ ndax xew yiw la indi woote ci alxuraan sunna bokk na ci ay jeexitam moo di yàq gi ni mu baree woote ci alxuraan sunna daf koy wàññi wala daf koy jeexal kuy xool ku nekk xam nga ne yàq bari na yàq bari na ci jikkoy doomu aadama yi boo xoolee mbedd mi tey li ngay gis ci loo xam ne lu wuuteeg la suñu bëggoon ci doomu aadama la loolu bari na lool boo dégloo wax yi doomu aadama di wax wax ju yàlla bëggul bari na ca lool boo xoolee fom yi ak bari na lool boo xoolee jubali bi ci alalu jàmbur ci deru jàmbur ci askanu jàmbur ci lu sa yoon nekkul loola bari na lool kon jubali bari na ci askan bi dem na ba la nekkoon ci xolub doomu aadama waroon a nekk ci xolub jullit muy bàyyi xel sa boroom ci ba loo moomul sa loxo du ko laal loo moomul ba ko loo xamul doo ko wax loo mënul doo sa dugg dem nañ ba melokaan yooyu ñu xaw koo ñàkk dem na ba nit ki ba am compétence jàng ba am xam-xam ci doxal wàllu adduna xare yi xarañe ko lool nga xam ne war ngaa mën a tabax am réew waaye maandu da dina buñ tegee alal sa loxo nga lekk buñ la yóbboo ci ci bërëbu liggéeyukaay téléphone ya fa nekk nga xam ne lu jëm ci liggéey baa ko tax a jóg nga jëfandikoo ci sa ittey bopp la fa nekk ci matériel boo xam ne a ko tax a jóg moo xam ay bëtéer la wala leneen la nga di ko yor ca marché ba di taxawaalu wala nga ciy tukki ca sa sa dëkk te oto yi oto askan wi ñoo ko kon diine dafay yar nit ñi ba lu mu moomul ba pare jóg alal ji nga xam ne dañ laa dénk nga géré ko lu mën a xew ci àdduna ak loo ko jekku jekku yow jullit bi gëm nga ne ki nga xam ne woo nañ ko ba mu gëm alquran ak sunna gëm na ne lii ku ko lekkee moo lekk posé na yem ci moom bal moo yées ci moom sax lekk posé ndax posé bi moom dundug àdduna bi lay faagaagal waaye lële dundug àllaaxira ga lay faagaagal kon kooku musiba defaru boobu nag woote ci alxuraan ak sunna képp moo ko mën euh, woote ci alxuraan ak sunna bokk na ci sabab yi nga xam ne dañoo mën a indi sécurité ci aw askan ndax ñi nga xam ne dañu leen a jàngal alxuraan ci boppam jàngal leen sunna ñi xam siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nan la doxale woon xam saxaaba yi nan lañ doon doxale am fekk ci diine xam li jaadu ci diine xam li jaaduwul ràññee li war a am ak li mën a am xam fañ toll ñu dunde noona ñooñu dañu andi fitna jëw askan suñ ko xamee dañu andi fitna jëw askan am naa suñ ko réeree nag xam ne lu ñu wax ci lislaam dana rek jàpp nañ ne moom xamewuñ la war a am ak li mën a am ñu bëgg jël la war a am lépp bëgg koo def nag tey su boobaa fa la njaaxum di jóge kon jàngale alquran ak sunna ci nu gën a xóote na gën a leere kooku moo mën a musal ndaw ñi tey ci ñi ay xalaat yoo xam ne yu dëgg doomu la jóg dem liggéey dem sunna jàngal nit ñi ñu génn ci pas-pas yu yàq yi génn ci biddaa yu yàq yi te wattandiku lenn loo xam ne luy yàq sécurité la ci mu réew parce que réew mi yéen yéen ko moom ki gën na moom dafa moom lii ci ñu koy tabax ci la bokk da war a jëmale kanam da ko war a defar ñu bari seen xalaat dañoo yaakaar ne daal réew mi moom xëy na gouvernement baa ko moom wala ministère ba wala nangam ci nga bokk yow fi nga juddoo say maam ak sa ñëpp ci lañ bokk da ngaa ci ñi koy tabax kee kenn la koo xam ne day liggéey ci benn bureau boo xam ne amaana bu ëllëgee mu retraite wala mu dem yow nag lii nga nekk da nga cee nekk fas yi nga nekk ba kii keroog ngay wuyu sa borom te kenn du la fekk ci sa taaw bi wala imaam jii nga doon na la yow nga retraité nga léegi bul daawaat kon da ngaa nekk ci loo xam ne ci a sax ba keroog ngay wuy ci sa borom nekk ci réew moo xam ne da nga fas yéene dund ba keroog ngay wuy ci sa borom kon da ngaa bëgg réew moomu nekk ci jàmm da ngaa bëgg nit ñi fa nekk jub da ngaa bëgg ñëpp ànd di tabax da ngaa bëgg mu bokk ci réew yi gën ci àdduna ay jullitam bokk ci jullit yi gën ci kaw suuf kiy jàngale loolu kooku day defar réew mi da koy tabax da koy musal ci lépp loo xam ne xeetu yàq la te loolu na moolu yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moolu woon na ko xeet yu njëkk yi woote ci alquran ak sunna daf ci musal suñu borom tabaraka wa taala nee na woon lu'ina alladina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryama ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون nee na banu Israil dañoo àggoon ci mbon nga àgg ci ñiy def lu bon kenn tereetu ko sa lu nekk waay def lu nekk waay kenn waxatu ne lii moo baax wala lii moo loola ba rëbbug sunu borom tabaraka wa taala dikkee ñépp la ko boole moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci fiina saalihun ndax nit ñu baax ñi suñ nekkee ci sunu biir yàlla dana nu mu ne ko umu kay su fekkee ne lu bon tasaaroo na ba àgg ci nit ñi amatuñ naqar ci lu bon kooku bu alkane yàlla ñëwee xam nekkul kii borom xam-xam laat ndax kii juboon na ci biir dërëm ku baax la woon ak yooyu yëpp xam nga mbugal bi ñëpp a ko yem bu boobaa parce que kenn defut la la wax kon jullit bi doyul mu nekk saalix la doon ku baax ci boppam fexe ba bu waxtu julli jotee mu julli du wax lu bon du ko def waaye nag soppiwul dara déet kooku responsabilité kenn ku ne am nga responsabilité boo xam ne boo baaxee ba noppi da war a baaxal loola te it ñi xam ne suñu borom tabaraka wa taala amul aw askan du bàyyi kenn bokkul kenn aw askan moo indi ñëpp moom dong mooy suñu borom tabaraka kon li nit ñi faral di wax naan nun day suñ suuf yi moom jàmm rek moo fi xew ndax te ñu baax a fi nekk ni mel noonu déedéet du noonu borom bi tabaraka wa taala amul benn parce que nit ñu baax ñi ci boppam faw ñu jubal ñii ne ci kaw suuf si seen responsabilité faw ñu jóg ci buñ gisee lu baaxul ñu xam ne lii baaxul ku war a wax nga wax ku mbooloo nekk ci sa gannaaw nekk ci dëng nga ne leen dëng ngeen jubbal jikko leen te bàyyi caaxaan yi ngeen nekk su ne eh, fukk baax nekk su sukk baax nekk rek jàmm dong dong moo koy xew kon banu Israël tey maanaam ba la ñuy wax Palestine kon ñoom ñooy ëpp jàmm tey ci kaw suuf suuf soosu ay yonent rek la fees yonent yàlla yi doon lim yëpp boo doon jàng anbiya banu Israël nga xam ne nangami junni yonent lañ seen bàmmeel yàlla foofu ñoom ñëpp te tey ñoo ëpp lu ñuy tuur deret doomu aadama ci kaw suuf tey tax naa koy baax nag ab yonent foofu nga mën a kon ñu bañ a te xam ne nit ñi li ñuy dund ngir suñu borom tabaraka wa taala def tawfiq ci seen réew yi ak seen mbaax kooku ñoo koy defal seen bopp ci kaw suuf ñooy jub ñooy woote ci mbaax ñooy tabax seen réew suñu borom tabaraka wa fekk leen ci yàlla ku góorgóorlu nag mu fekk la ci euh, bi ñu mujjee moo di ne bokk na ci jeexit yi ne suñu wootee ci alxuraan ak sunna ko loolu boole jullit yi kaddu jullit yi seen kaddu nekk benn ci loolu la mën nekk li ñu tuddee waxdatu saf muy bennoo ci ñi woo nit ñi ci alxuraan ak sunna ñu jàpp ci xam ko budul ci loolu la mën a nekk waaye budul loolu woote jëme ci ab kuréel muy ab xisb wala taifa wala mbooloo ak mu mbooloo mën a tudde boppam loolu doonut loo xam ne muy luy defar doonut luy boole askanul islam l'islam dafa am loo xam ne bi jullit yépp ñoo ko bokk da leen a war a boole mooy alquran ak sunna fu waay mën a nekk fu nekk war ngaa mën a dégg ni ñu wax alquran ak sunna war nga ko nangoo wuy ci suñ ca ca woo ñooñu nag suñ àndee def loolu ba ñëw ci alquran ak sunna di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem loolu moo ñuy jox li ñu tuddee umma maanaam xeetu l'islam la ñu yor bu boobaa boo xam ne wenn xeet la boo xam ne ñoo bokk ni ñuy xalaate yàlla ñooy bokk li ñuy bëgg ñooy bokk li ñuy bañ ndaxte li leen di orienté leer muy alxuraan ak waaye bu fekkee ne kat dama ne sama kër baay man jàpp naa ne ñoom ñoo gën a baax ñëpp kon man su may woote ci sama kër baay laay woote ah keneen nekk fe moom itam ne man sama kër baay man itam moo gën a baax ñëpp damay woote jëm ci moom keneen jóg taxaw fële keneen jóg taxaw fële sunu askan daal di doon ay pàcc pàcc kan bu nekk as kuréel nekk fa kuréel bu nekk yëkkati ab drapeau ne fii rek keneen def noonu keneen def noonu loolu mooy tàqale xeetu lislaam moo leen di néewal doole loolu nañ ko wattandiku am nañ forme yu bari mën naa feeñ ci forme ay tariqa mën naa feeñ ci forme ay mbooloo yu lislaam yoo xam ne ay jamaat la ñu ko defee foofu wala ay xartaat man naa def lu feeñ ci forme ay association waxuñu ne ab kuréel wala am mbooloo bu mu am ci lislaam waaye mbooloo bi bu doon loo xam ne la nit ki di topp ba mën a bàyyi moroom yi li leen boole ak fu ñu mën a nekk ginnaaw alxuraan ak sunna loolu nañ ko dund yëg ne fépp fu nit mën a nekk di dund alxuraan ak sunna kooka ci yow la bokk moo xam ak nu mën a tudde mbooloo na ko jox tur wu ko soob yéen a bokk lu ngeen nekk yéen a bokk lu ngeen gëm a bokk di dund te bu kenn mën a dox nag sa diggante ak moom ci jëflante yàlla suñu borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiq euh, sàmm ñu ba ñu mën a taxaw ci woote jëme ci alxuraan sunna te wërsëgale nu nu sellal jëf jooju e, te sax ci ba kerul li wuy ci suñu borom tabaraka wa taala li gën ci waat di sant mbokk yi ci organisation bu rafet bi ak dégg bi e, bu baax a baax di ñaan borom bi tabaraka wa taala lépp lu ci nekk ci jariñ yàlla nanu ko suñu borom tabaraka wa taala boole ak xiyaabam lépp loo xam ne nekk na ci njuum te mu jéggal na ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain